في الآخرين إمام المرسلين وخاتم نبينا ثم خلق الله نبينا وصديقينا وسودا وصلينا من درة البهجة أنوار ذات المصطفى هو خمر وكل نولا كواكب إذا ثم جمال الأنبياء بهدرة القدس واختارنا يوم سادس القدس الله ولتدى الإيمان وارم من فقالوا ربنا من ختنا نوره فخال على نور محمد الذي الذي الذي ولعكم ابن نظام إن أمنت به جلقا بالعون كم يا رسول الله وقيسر العالمين به كسى جميع البرايا من بدايتي لولاه ما كان الوجود ولا هل كان ما كان إلا من كرامتي إمام يا حبيب الله محمد كما تجري صلي عليه كن صلاة السلام على رسول الله Salah. فالسلام عليك تترى من الله وتبقى بلك البراء فالسلام عليك منك فما خيرك من لك سلام كبار وسلام من كل ما خلق الله للتهيئ بشكرك الأملاك من السماء إليك أو النقبة وسلام على طريقة تعدل به من تربة وخساء مقام صلاة من عبد الله وخمات بربها الأشياء كلمات لا سومات ليلتي لا يجاوزنا فهم لا فايرون وبأغنى إلى رسنا بكل ما لم تمنع وما لم أعلم من الجوان البقي على النقم المصطفى سلام ولدي وما قلت في سوى متجددي ويا من له قلب يسعى يستدي خلفت دلاسي مدار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هدينا تمتعدنا دغم بو ام الله دنا عبادنا نغم ينتمي نيون دغم خرافال جنا رسول الله معي سنجي تيادنا دنجي دلوك تمور اليرمان دي لخدر بغن قل ايم كوين عاتر المعقن شن نبينا محمد مام ترام باخوي اللونا لا من وخدا من فاس باخنا bu baax fa yelloo a wax doo mën a paase baax naa segam moom lañu daa woye lamina moo ni mees kenn du fi des ci àdduna saabay rasool yam limaana ali na babakar umar usmaana ñoo xar gi yaar ci kër yonen ci àdduna seen seen njaboot saal jana جنايرن با أبا بكر صديقنا جناو ينن أبا بكر صديقنا جناو ينن أبا بكر صديقنا واو ما يرغي لا مدخ سداد صديقنا mooyu xilaafa sax si daddu àdduna ginnaaw Seyna Umar man jooy na ki daa tëqale dëgg ak nar fii dem na ginnaaw Seyna Usmaan faana ki yàqalu mboolu mbaati quraana ginnaaw Seyna Aliyu ndee war na ki daa bëgg Rasuul laay bu tiisee dem na mais nag mu ne war moo bëggal Rasuulu yow ma lu ne moo bëggal Rasuulu wala baalim sakk ku nekk war na jàpp diggante saaba yëpp wàccana xex nañu waaye daañu tabi aljana xex nañu waaye daañu tabi aljana waaw waaw xeex nañu waaye aljana ginnaaw ndaw sa juum be pasan asan Medina jaada tu war naa jëndeeg sa tub Rasulallah ñu war la rus nga jaadatu kindu yaa gane asan sa Medina ji jigéen day perte yesini bañasan mboom lu karena siix ba useyno li kay bir na maa yadee mu doon na nguur ga woote naa nigul ñu balka moo moo taxaw naan falu na noona bu seen wàcc diina tooñ naa rabul ibaadi waaye laaw muñ naa moxay dagal mbiram ku bañ nu rey xanaa moxay dagal mbiram ku bañ nu rey xanaa waawa moxay dagal mbiram ku bañ nu rey xanaa waawa moxay dagal mbiram ku bañ nu rey xanaa waawa moxay dagal mbiram ku bañ nu rey xanaa rey xanaa leetal nga alul baytu ñepp a jeex naa كوبان مريخنا لتون والو البيت يفجيخنا لبتغل يزيد والو يخمني وزين مام بزخي عدنا شقفت اللي ورنا موتر يزيد خير قايم ينفى يعني بنا نيو جوني تلاتر ووسين وقانتنا نينا قلوا عدي كل عربية قرآن اللي سمعان تخو دوما ندول توينا تقول ياي ولا الكيفة تلي نعونا نعو الإليف نعو فكا نعورنا ولأنه قلبه فاس منار يا ربنا ولأنه قلبه فاس منار يا ربنا وزين قلبه ووا وزين قلبه فاس تبانا يا كدقل سميرت نندم جتنا يا ربنا naan yaa rabbana yaa ki dogal sa si nun dem jot na laxa tàggu ci réew ma ñëpp bokk naan kaa bu dem ira xural kéefar yàgg na sa baay Aliou ñoo ba génn naa àdduna sa mbëggeel ñoom kon kay des na mu tontu gaaña naa leen dogal bu yegg si na yebas muslim rakkam ja mu jiitu boobu dogu na mu tontu gaaña naa leen dogal bu yegg si na yebal muslim rakkam ja mu jiitu boobu dogu na rakkam njaag si gaañoo ko fekk naa moom foogul ne dañuy xeex ba rey ko bett naa ñu ko wante junniy leetar la ko bind muslim diggante bi mu ko joxee départ agu muslim ñëwee Karbala nekk na dix-sept jours mu nga déparé mu nga déparé Makka àllarba àgg àgg Karbala àllarba awaa la tax nag wasiinu jëngu ah junneelu leetar ba ca ñu ko def wax ne ka ginnaaw nun ay yéefar lanu bindoo nañu la pour nga ñëw nu jébbalu tuub bañ nga bu ëllëgee sunu yoon bu nu taxawee bis benn ca mën noog samaam bu nu lay dina lay loolu tax mu jëngu jox muslim nag départ nag nga nga ma kat balaa bala ma agsi na na rakkam njëg si gaañu war ko fekk na foog ne dañu xeex ba ñu rey bett na ñu ko waa daree naa junneeg juróomi téeméer jengu naa di bañ gàcce ñu rek a muslim wàcc naa walay nu wala am nag waalul baytu naa walay nu waar am nag waalul baytu naa walay nu waar am nag waalul bayt waawaa wasay nu war am nag waalul waawaa wasay nu war نغو البيت بدنا كرب كل بان عباس ونيكنا يا ربنا يا ربنا ولين ورنا وآل البيت نعكرو كل بني أباس ونيكنا غانيا نقول سنجا dia tahu jangan sopir ba. Men kaya lo bana, ya lo bana hadina. Nunggu rambol jangan fasia. Mau izah lagi nangka Allah akbar, Allah akbar jalan rabi akfir lana. Amna nyu ayam di kadok belok takkan ang yang on am cinyu deg marwatis Udah nyu dia suka nya. Nalentar na mulai rasa tu nang kàddoom ga dar na seen xol ya bokk naan kaa xiifatunoo sonnatunoo ngir yaa di sayduna sama mooy xaruna su loo wax sotti na ruyu fi teew du fekk gàcce jombe na yowmal xiyaama sama mooy jiitu ruy naa nag si leen yow yaa jiitu yor dékoore keroo koo xam jàlla na nit jur na ci Karbala foofu da yaa naag fu sit waykat ba mu nga xam naa waaye raa seen xol àndoon naa démb waane tey jii seen jaasi ak yosit booloo naa wala nu jaf ca ndox ma gaaya dëkk naan fii doo naan te xam ma jekku na ba mu déparé jëm ca ndox ma fekk yosit mi yor po mi bi dafa natt diggante bi ñu waree ak bi ñu waree ak see faraat mu xam ne mar dina leen fi dab ñoom xare ba waseynu ba mu dem nag posé na dex gi samp benn drapeau bu xonxa ca bopp faraat dex ga ba nga xamee ne wasiinu rëppatal na tëseeg fërsët fërsët naka sang bi foo jëm ci tàngoor yi mu ne ka waa iraax ñoomoo dañoo wax ne dañoo bëgg a mu ne ka am naa fa ñetti fan fa laa xëye waaye ñetti fan ñii ñëpp daa si jaa si ak séddoo puutar moo fay liggéey waaye wasiinu bés may mu a rek mu dem am na lu ñu wax dem waane tey ji seen jaal yaa gër booloo naa wala jam jandoo ma gaay dëkk naan bi doo fi naar bexem yesit jekku naa mu feeñu leen ñu bañ feeñooti leen ñu bañ waaw mu jaaju ak si naa ah, ah, ah. gaay lu neexul am na mbir mi tànga naa leen ñu bañ mu jaan yokk si mu ña mu àndaloon lu neexulam na tey ji mbir mi tàng naa. booba dafa xool faraat seen drapeau bu xonq ba mu mu mbooloo mu wër ko mu taxaw ci digg ba waaye rasulullah joxoon na ko ca dundam benn pas-pas bu suuf su weex nekk mu nekk boo demee ci jamono ba yàgg nga tekki pas-pas bi xool suuf si mu ñuul fa nga taxaw ñuul fa nga war a des moo tax naka mu sërxal bët ba xool bopp ba gis drapeau bu xonq folot mu geesu gawar gi ne leen ah ñële kat njëbbal lañ wooye woon waaye dootu njëbbal ngir la leen liwaawu laxmar la drapeau ba xonq la xeex la pare leen am na lu ñu ko wax lu neexul am na mi mi ndax ñi leen nga dee ci yoonu ngir mar ñi ngus sa ngir mar ngeen ak sëñ naan fii du leen fi naan kon kay tey ji taay sama maam ali na bi taay sama baay faata bintul bu toog sama yaay gas leen ba xoot a xoot ku lay jeex ma gas leen ba lay waaw waaw gas leen ba meel lay jeex ku dee ñu suul nga yeewu tàbbi aljana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana waaw waaw kas leen ba meel mu xóota xóot ku nekk sa bos lay jeex na ku dee ñu suul nga yeewu tàbbi aljana jàmbaar jaa nga takku geesu gaayam ya takkute naan leen gaañu feddal leen seen takkaay ku nekk ngay xas may nañu leen lu tax nag ñu mën a góorgóorlu keroog keroog ku war a dee ci jullit ñi ca bés ba sa sa jabar jóge na orol ay ni ñëw ci àdduna di la fóotal di la nga di ko gis sa bët moo tax takku nañu keroog am na lu ñu leen wax it walaay ñu xool suuf dëkka maam yan nen naan gaañu fii mooy kadum wa balaa mooy sipe kaay ruyi day naa waaye dayam gi du tax ma ñaaw di wàññi may mu naa bërëb ba wa sëy noo ko tudde karbala ba mu xoolee suuf sa mu yor mu ñuul fa mu taxaw ñuul mu ne acier mawdiw mawdiw carbone wa balaa fii nu taxaw tey mooy palaasu mbas bi mooy palaasu njàqare bi fii la nu war a des mustirul biidu umran bahdama waradat min al idaa kulla maswadan min al lilami والكاتبين بالسمر الخط ما تركت أهلهم أرفع جسم خير من أجمل بسر ولن تنتفع deyam ngir tamaña du wañi maymuna dara xarafte gaaña xale yux na leen ñaan daw leen kaa doom yàlla na muy doon na jor ak càmmooy gaaya jeex na yësit yoon ni ari jaani noon jeex na no jaasim jayi dal yëbar ya bokk naan fas wuy rey fas ànd ak boroom rey kenn masu kaa jafe na jaasim jayi yusuf yónnee kul bu njëkk Seyna Useynu ba jam ka jam njame posan li metti na dangar ji fes na xol ba naan na doole ja ba caram yëpp na jaasem jaay dal muy waa bale wet gu neeme liggéey na ñolooro ca dégg mandig ma waaye ña mu àndaloon jeex nañu jaasem jaay dal bu yàgga xel ma dem ca njaboot ga moo dawal na jaas ak si jàkkaarloog ñoom ñaaka siri foo bu delloo dangar jam jam yi metti na jigéen ñaa nga takku boole xiif ak mar te naan kaat tey jii foofu deenu dee fa jot na doom ja lott waaja xam ngir mar naa u fukk jëm ca ndox ma booba dogu naa del ba tii ndoxum faraat tenq naa ndox doon xool doom ja fita gaag si rendi kaa doom ja dee u fukk yëg yaay ja te naan kaa doom ji fetta ka fero mu ñal jiyaar naa jolle lenn waalul biiti aliawu te naa جلن وآل البيت واو جلن وآل البيت واو جلن وآل البيت واوا بكربلاء لبران وروزينا يلا لين ما لوز بيت اليوتنا بس كربلاء على كان يرهوسينو رين يوزينو تكاو تون كهامنا عنكر بيقال يزيب خامناني دمون نبعي نام غاني خانو باقسينا نام نينام دم لين دوك لك النحكا تنو قاوت جبر كبالا نيو دم لين دوك لك النحكا نيكا كركتا كنا تنو قاوت جبر كبالا نيو سيدي وني مايمونا دول بقاكي تكرقه فكذلك إيمه ñett li xol keefara bon soxore yàgg naa janug sa tub rasulala di ren di li ñaaw na dawa saynu naanul may mun a naanul xanaa wala nu naanul may mun a naanul waaw waaw wa saynu naanul waaw waaw wa saynu naanul nu wér waaw waaw wa saynu naanul xanaa la gawul ala a naanul xanaa kaw saraa di déeg ba xanaa yaram wa soof mu mer war te bay mun a doom songi gaa ñaaxal te fa soo daanu na mboolem yi fa ku ñëw ba tim ka daw naan gaa yi daw baa ji ñëw na cubat yu mer naa somlul mun njaay la kaddu jaalim ja ak si dog na ba puus siinu ba مغاكا دي ويتنا لو فريكا بفداة وإسابة إني قتلت لكل مؤببة منا قتل خير نالي أما وأبا وخير ما يحسبون نصبا كلاك يوم الجمعة لا جوين وزين أرزاق كل السماء جوين jantak بديو جوين jooy ليالا نوان كن جوين كروك بچلون kun نمغترنا ko jagloon waaye la ndam na lool ba jagloon waaye la ndam gàttaar waaw waaw ba jagloon tar na lool fooxol mu taa deret jàmbaar jojooru na rabbana yaa rabbana bëccëg la woon waaye lëndëm xar na lool foo xool mu taa deret jàmbaar ja jooru naa façon waa nga dee di xandu Useynu belee na ñetti téeméeri jaali yéefar ya gàddaay na naanul ca ndox ma génn na mbooloo ma nuur na ca ga ba te nu teeg la na war mu wàcce kenn dootu lekk kenn dootu naan deret xanaa li am na ay fan ca réew ma beekoor na boobu Useynu nga mel ni weeru Laylatul Badri leeral naa seeni rokk la nam nga tar na ba ñu agsee tut gaaña fa toog for nañu këyit ñu bind ci tarjoolu ma tuutay nu xatlaab safaati xanaa yaakaru nu safaati jaddidi yomale saabi yëri gil katit saalili ju te neen gaañee man ka santuma leen woon ngi yéendere wuseenu fob nañu bopp ba ci am ne xam naa ne tuuti ni jaas aksi tàllal naa ab lal ci néeg ba fob na bopp teg ca tinaan ak sirtu sët bi wàcca na jiyaar ñu rey ci kaw tooñ ko wàcca na rasuli teew saabaam fab na ba baaju xaadi bintu naay jafam na dellu sa di jooy ca wel na lool dellu sëngéem di jooy jabeel gatar waaw waaw dellu sëngéem di jooy tar na lool ku ñàkk la jooy ka aseeg wasayna ku ñobatin ka رسول الله rasulallah sa tambarirna ربنا مريد وولد ولا يقول ربي خير ما تريد هدي لنا رلوانا وتسليما لكل ما تريد يا أكيما